arbitre bi sifflé na dafa mel ni bii ci quart de finale yi la bokk daan dem demi finale actuellement général Malika qualifié na demi finale combat bi moo dox ci diggante Cheikh Tidiane Niang ak Thiaka Faye Biram Kunkung ak Cheikh Tidiane Niang ndaysaan Cheikh Tidiane moo ngem moo ngem lu xonq li Thiaka nga noonu ndaysaan Thiaka moo nga noonu moom ngeen jàkkaar lool ña ngay lewaatoo ñoom ñaar Cheikh Tidiane ñaar Thiaka Faye Thiaka tàccu na ci loxo yi te nga ca kaw waaye xel maa nga ca suuf Thiaka sàmmal ma say tànk yaa ngi bëri xale boo xamante ni ku garaaw la waaye Thiaka mi ma gis actuellement ci làmb dafa tey joxe cër ku muy bëreel da lay sedd cër Cheikh Tidiane ñaar Thiaka nga noonu ba tey Cheikh Tidiane Niang Thiaka Faye Cheikh Tidiane Niang Thiaka Faye Cheikh Tidiane Thiaka Faye Cheikh Tidiane Niang Thiaka Faye ndeysaan ñu ngi noonu ñu ngay leewaatoo Cheikh lu mu nar wala caaka lan la nar lool yëpp ci kanam nga xam ci dara ndeysaan caaka fay Cheikh Tidiane Niang caaka fay Cheikh Tidiane Niang bi wax na leen bëre leen ji dafa yéex na gaaw arbitre bi sifflé waat na Caaka Faye Cheikh Tidiane ñaa Cheikh da day bëre di waay man Cheikh Tidiane mi Caaka jël na ko mu mbas ñaar lu ñu nar Cheikh Tidiane Caaka Cheikh Tidiane ñaa Caaka Faye Caaka ngay defaraat lapp taake bi Cheikh Tidiane ñaa caaka fay ndaysaan ndaysaan compétition bi nu muy gën di dem daanaa ni di gën di toog Malika éliminé na Boy Faye ndaysaan général Malika éliminé na Toubacouta ma nga noonu ci compétition bi dem na demi-finale kon actuellement combat bi dox ci diggante Cheikh Tidiane Niang ak Thiaka Faye ku daan dem demi final ñoom ñaari xale yi kan mooy bëre final ñoom ñaar kan mooy bëre final bi ndeysaan ñu ngi noonu jël na jël na ko ndeysaan tàllal na ko mu bañ ndeysaan ndeysaan ndeysaan <laughs> Obeuly ak général Malika ndeysaan ku daan dem final loolu loolu na première demi-finale ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu ba tay Cheikh Tidiane Niang ndeysaan Cheikh Tidiane Niang Cheikh Tidiane Niang Cheikh Tidiane Niang Cheikh Tidiane na wala déet ñu ngay lewaatoo ñoom ñaar ñoom ñaar ñu ngay lewaatoo ñoom ñaar ngay lewaatoo ndeysaan ñu ngi noonu ndeysaan ndeysaan Cheikh Tidiane Niang arbitre bi sifflé waan na ndeysaan arbitre bi sifflé na arbitre bi sifflé na Cheikh Tidiane Niang Thiaka Faye Cheikh Tidiane Niang Thiaka Malika ak Ibou Ndiaye Obali ndeysaan ay waay combat yëpp a neex waay fi mu toll de mooy ku daan dem final ndeysaan compétition bi loolu lay nduru te loolu sax moo am ku daan dem final ñett ñeenti champion ñoo génn ndeysaan ñeenti champion ñoo génn caaka a ngi déglu caaka fay Cheikh Tidiane Niang Cheikh daw na jëli ko jàppante nañ sëñ Bas wàllu bee général Malika Cheikh Tidiane ñaa caaka Zee jëli na ko général Ibou Ndiaye Oberi jàppante nañ Ibou Ndiaye Zee jël na ko Ibou Ndiaye gësëm na ko jàpp na ko gësëm na ko Ibou Ndiaye lu nar pëtaxal na ko jàpp na mu bañ Ibou jël na général lu nar. Ibou Ndiaye général toog leen ay waay yéen ñu wër toog leen ñun de ñu ngi ci dansé ndeysaan Ibou Ndiaye Obali wàllu wee yaa fa am Caaka Fay ak Cheikh Tidiane Niang Ibou Ndiaye Obali ci wàllu wi ak général bu Malika jàppante Ibou Ndiaye Obali jàppante na Caaka Faye ak Cheikh Tidiane Niang lan moo gala jaa ngay dagg sangoor yaa ngay tekkeeku dox ci diggante général ak seni ak Obali Cheikh Tidiane Niang jël na jàpp na ngemb Cheikh Tidiane jàpp na ngemb Cheikh Tidiane Niang ak Caaka Fay Caaka lu mu nar Cheikh Tidiane Caaka Caaka si gina Cheikh moytu manuel bi Caaka <laughs> Fay la waaye wàll bee dër bi la Barça Real dox ci diggante général ak Obali ndeysaan Caaka ak Cheikh Tidiane Caaka ak Cheikh Tidiane Niang Général Malika Obali ndeysaan Caaka daa bëgg a jàpp Cheikh ko fu mu jàppee Caaka daa bëgg a jàpp Cheikh Tidiane bañ Caaka daa bëgg a jàpp waaye Cheikh daa bañ Caaka Caaka bañ doole doole doole doole Caaka Faye éliminé na Cheikh na